njukkal euh, Babacar Karajo Diagne moom moo nekk tey si euh, machine bi euh, tey jii abu mbay moom moo directeur u marché centralu jën bi nekk fii ci Pikine moom la ñu dalal ni Abou di la nuyu la ziar. nii lay delloo ziar bu baax di nuyu aussi ñi nga ñu nu bokkal plateau bi yëpp. abu marché central bu bu jën bu Pikine depuis kañ nga ko tàmbalee jiite. Euh, bon maa ngi nuyu di la remercier vraiment si invitation bi euh, di gërëm aussi euh, kilifa kër gi ah, si taxawaay bu mu am si si réew mi marché jën maa ngi ko commencé yore depuis léegi daf na quinze mois donc c'était en décembre 2017 à peu près donc dafa naa day am solo nu fàttali importance bu marché au central au poisson am parce que mooy marché bu gën a mag si sous région bi hmm. daanaka ay junni junni nit bis bu nekk no yeewu trois heures du matin majorité bi ay jigéen d'ailleurs c'est c'est le moment de le rendre hommage parce que soo taxawee trois heures du matin ñoom ngay gis nu jànkanteeg euh, guddi jafe-jafe dugg gàddu seen pann ñëw jënd jën wut lu nu yóbbu dam yóbbu si njaboot gi mu ay deux cent cinquante tonnes lu mu bon bon dinañ ko débarquer mensuellement mu nekk benn valeur commerciale boo xam ne dina transiter si loxo mareyeurs yi topp ay un milliard cinq donc mu nekk marché boo xam ne kenn ñëpp xam nañ ne amoon na benn jamono si ginnaaw mhm. amoon na melokaan bu bu jéggi dayoo. marché bi nag boo boo fa demoon moom vraiment. tout à euh, fait doo à fait donc man bu may bu may jël fonction si marché bi daanaka. Euh, marché bi man premier jour bu mu fay dugg sama dama dugg rek sama fit rëcc parce que ma ne man comment je vais pour pour parce que sax yi ndox bu bon ndox yi di bon bi di bal manque organisation fu ay neex lal fu ay neex taxaw donc ministre bi ah boobu ma jëlee teg ma si marché bi bon nekk jeune bon nekk sénégalais mu ne ma damal toog marché bi en attendant mu xool njiitu réew mu lan la siy def ma toog ma ne man su ma toogee di xaar jiitu réew mi kon matuma lu ma doon nit suñ la joxee responsabilité da ngay am taxawaay ba ku lay dap dab la si yoon bi donc c'est dans ce contexte là te day am solo nu souligner benn affaire mooy maa ngi fekk état bi peut-être duñ jàppale si ndox ak courant mais man bi may egsi aw ma accompagnement financier day wax nu ma am jëlal xaalis bi dafa mm. mais dama ñëw jël xaalis marché bi rek dugalaat si marché bi donc man lu may wax chaque jour tey doo ubbee yow xam naa ne am nga xam-xam bu baax si alxuraan nan ma wax fan la yàlla bind lu baax lu lu rafet lu taaru nit bu weex rek ko moom yàlla waxu ko wen lu ñuul lu salte lu bon non loolu moom nit bu ñuul rek ko moom non yàlla lu baax ñëpp la ko jagle donc man c'est dans ce contexte là que je me suis dam naa bitim réew dam naa fu nekk France États-Unis mosuma wàcc benn dëkk gis ay jinne di tabax dëkk boo dem rek ay nit nga fay fekk yu engagé jaru sax ni sori Rwanda bi rek qu'est-ce de plus que nous am taxawaay ñun ñu war a mun ko bañ am. donc ma ñëw commencé liggéey man dama ne xam nga lan mooy suñu problème Tounkara Sénégal Sénégal mun nga nekk docteur am xam-xam mais doo efficace ci liggéey efficace te liggéey mooy lan tey table bi dina kaas bi nu fi jóge mais jarul séminaire. jarul atelier de formation renforcement de capacité 1960 ba léegi ñu ngi renforcer ay capacité jëlal kaas bi nga teggi ko mu jeex nga dem sa liggéey. kon yow marché bi fi mu toll nii set na. zéro ordure zéro déchet marché central au poisson euh, japonais yi bu nu koy offrir peuple sénégalais. Hmm. dañu bàyyil ay fleurs. Hmm. exemple bu gàtt. ay nu ay fleurs mu taaru rafet dix ans après fleurs yooyu daf ka mbalit. non man dama man. sama ambition nekkul seetal marché central marché dafa war a set. man sama ambition mooy nekk meilleur marché d' Afrique. est ce que fleurs yi dellu si nañ. mais marché central yëpp ay fleur la. Mm-hmm. est ce que parce que fleur foofu yëpp c' est dommage image yi am na possibilité wane ko man sama sama priorité mooy dama jël fleur yi gazon yëpp dekkalaat leen. waaye léegi Abou wax ñu. Mm-hmm. nan nga def ba seetal marché bi. nan laa def ba seetal marché bi mooy un gëm sama bopp deux. mooy efficace ci liggéey bi saa di mbalit bëri na fa mbalit ay jinne duñ ko dindi dama jël dindi je suis passé à autre ndox bu bon soxlawul nga dem jëli compétence boobu bitim réew compétence baa ngi fi ay ay euh, plombier nga dem dindi mu deñ ah cest manque organisation ma ñëw ba ma ñëwee dama ne su ma bëggee ñëw mënoo jiite ay nit bëgg nekk si kaw da ngay obligé wàcc donc man man marché man sax damay bale man damay jël sama bale di bale parce que yàqul dara si sama si sama kii ah. parce que mais léegi mbalit bi fan lañ koy yóbbu buñ ko buñ ko. mais mais mbalit bi da nga koy jël on danoo signé convention ak waa UCG. man boobu ma ñëwee dama dem seeti directeur UCG ma ne ko dama bëgg def seet seetal bu mag. mu ne ma ok d' accord mais suñu problème Sénégal mooy noo dàq set setal tey suñu doon dàq coupe du monde set setal nooy jël premier. Mhm. mais lan moo nekk après set setal. suivi bi waaw. suivi bi donc man par exemple suñu miiru marché. moo nekkoon mur boo xam ne dañ daan lal ba si digg tali bi. jël fëgg jaay di lal si kaw mur bi ma ñëw may leen léegi may leen ma ma dem seeti gouverneur nu dégagé mais boobu nu dégagé su ma bàyyi woon noonu nit ci ñëwaat. dama jël mur bi defaraat ko bu mu rafet daf ay fleur daf ay gazon ba kenn ñemeetu fa di lal. bon euh, Abou Mbaye euh, oui jigéen ñi fii ñoom ñooy dem marché central Ajara dem nga fa. waaw euh, surtout que dañu am programme bu am solo aussi boo nga xamante ni jëm na ci wàllu tri d'ordures yi. Mhm. parce que gis nañu ni que ni femmes yi nekk xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir marché bi di di liggéey ñoom dañu regroupé wu en communauté di def tri. sachet plastique yi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci ci marché parce que ku wax marché poisson xam na ni sachet daf fay bëri. ak mhm. ak lu ni mel. Mhm. donc ci cadre boobu noonu jotoon nañ fi dalal sax ci ay jot détail euh, ñu expliquer ñu quand même ni ci mbuus yooyu noonu dañuy dem di si def ay sac di di di en fait recyclage bi système de mm-hmm. recyclage lañ génnee foofu noonu donc euh, pour appuyer rek lu mu doon wax donc lan la ñuy def mbalit bi je pense que loolu ci la bokk. Khadija. professeur man ci mm-hmm. perspective yi laa bëggoon mu ñëw ak ñun parce que mm-hmm. quand même euh, yàgg nañ fi toog di wax ni suñu marché yi adéquat wul parce que da dem ci di patauger si mbalit mii di patauger si biir ndox yu bon yeeg nu ñu mel bu ñu demee ba gis ni quand même ñi ngi defaraat yenn marché suñu xel dafay dal rapport ak concurrence bi nga xam ne mi ngi commencé di installé wu parce que gis nañ ni de plus en plus ay grandes surfaces ñu ngi ñëw di mm-hmm. mm-hmm. nga xam ne ñoom ñooy dem marché mooy jigéen ñi góor ñi sax de plus en plus ñu ngi euh, tendre di dem ci grandes surfaces yooyu mm-hmm. naka ngeen def ba peut-être concurrence bi même bu fekkee dañ naan c'est une concurrence déloyale mais quand même que ngeen mën a nekk au même niveau que grandes surfaces yooyu bëgg naa ci euh, loolu aussi bu nekkee ni amul keneen ku poser allez-y alors. gestion marché bi oui. gestion marché parce que jotoon nañu dégg aussi ay ay euh, euh, ay yoo xamante ne amoon na ak mareyeurs yi naa tamit ñu ñëw ci point boobu euh, nan ngeen gérer. crise bi dinaa penda marché central rek nga fa. waaw <laughs> ah, professeur man dafa am lu ma fekkee marché central donc vraiment transition bi dañ koy dañ koy rafetlu parce que man temps capitaine Diop laa gënoon fréquente marché central te li mu indi. daf ñuy ramené waat ci loolu parce que dañ doon wax ne soldat militaire rek moo mënoon gérer. Mhm. yenn structures yi mu jaar yoon mais gis nañ ne civil moo ñëw gérer ko mu jaar yoon transition bi nag li xaj ajara di wax y a eu des problèmes yi tax ñii ne ñun ñoo war a gérer suñu ko mu indi ay problème marché bi salté ba pare mel am melokaan boo xam ne kenn bëggatu fa woon dem sax di fa jëndee jën bu di ko féliciter mais comme dañu wax perspective te gis nañu tey Sénégal marché yu bëri ñu ngi tàkk ñu ngi lakk te euh, am na yoo xamante ne peut-être expertise ñu ci am loo xamante ne war nañ ko mën a partager ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñooy nekk ci yeneen marché yi te lan ngeen xalaat ne loolu ngeen mën a apporter teg ko ci table bi mhm. pour aider le gouvernement sénégalais parce que mhm. expertise bi du Sénégal rek la am am na feneen pour ñu mën a améliorer conditions yi nga xam ne ñooy la yeneen marché yi Sénégal nekk mhm. parce que bu doon marché poisson dans tous les autres marchés du Sénégal day am fu ñuy jaay jën mhm. am fu ñuy jaay yàpp loolu nan la ñu mën a régler problème parce que professeur pour jeexal man dem naa Kenya dugg marché boo xam ne biir Nairobi parti jën parti jaay fleur ak yëpp tey benn amul gisoo salté au contraire boo duggee marché jën bi xetu fleur yi moo lay fekk si marché yàpp bi 13 heures 14 heures nettoyé nañu marché bi lal yi defar yëpp dem seen yoon boo fa duggaatee bu ñu la nee lii marché la doo ko gëm. Euh, pourquoi ñun Sénégal mënuñu yegg à ce niveau là lan mooy problème bi nga xamante ne mhm. peut-être yéen moom ngeen jànkonteel rek. ko ñu mën a def yeneen problème marché yi dañuy tàkk non suñu loolu lay wax nii suñu marché yi mhm. dañuy tàkk y' a énormément de choses la mhm. saleté ak yeneen yi nga xamante ne xëy na. parce que court man dem naa benn dem naa benn marché boo xam ni. Ah, doole ci euh, dara Vienne Autriche marché bi bu guddee restaurant lay nekk. carrément ah bëccëg bi moom marché la da ngay ñëw kii mais guddi ñu jël affaire yëpp teg puus nii ay restaurant ubbi alors Abou mmh. euh, léegi euh, est-ce que mun nga njëkkee si coow yi ñu doon dégg ak mareyeur yi waaw xam nga xam nga mareyeur dañoo nekk ay jàmbaar mareyeur dafa nekk xeetu nit boo xam ne euh, du ñaan mareyeur day ñàkk di jariñu mareyeur day xëy trois heures du matin ñëw di liggéey ku mel noonu soo ko bëggee xam nga kii cest à ñu ñuy dénk responsabilité il faut nous mesurer seen degré de responsabilité mm-hmm. nit suñu la denkee ay nit c'est pour nga tiitaroo nit yooyu la mm-hmm. par exemple ma yére man boobu ma ñëwee man du ma toog sama bureau lu may def sama bureau marché tagu na la pour nga toog sa bureau damay wàcc si suuf maire di may toog seen paan yi mm-hmm. ñëw di leen accolade DG dama takk jën ma ne ko mais jën bi moo tax nu bàyyi ma fi ko am dëj ma dem ku am génte ma dem parce que avant ma doon bëgg faj sama soxla il fallait nu nu nu nu bëggal ma seen bopp donc man noonu laa def léegi ma am complicité ak ñoom ba pay am gestion participative. Mhm. man lépp lu may def man sama xam-xam kese amul solo. Mhm. mais xam-xam yu ñëpp toog fii boobu mooy xam-xam bu baax bi donc man dama leen di woo lépp lu may def. lool leen xalaat na nanu waxtaan na nanu am travail d'équipe waxtaan nous trouver ensemble la solution même su nekkee sama solution dama leen di def faire croire que yéen seen solution la loolu nga def ak mareyeur yi loolu laa def ak mareyeur yi mais problème bi lan la woon non xam nga problème mooy soo amee sa marché di fay sa juuti ngay gis marché bi di salte gis marché bi di di am xet bu bon gis marché bi di sax di am ay sax mais daf nga rebelle wu mooy di ngeen doon wax sànq rek mais ñoom lu nu bëgg mooy parce que ñun suñu rôle mooy gérer marché muy set di sell am lumière am éclairage et cetera et cetera mais marché boobu loolu amee ba léegi uh-huh. xam dañuy wax marché central mais marché central guddi la parce que sànq dafa wax lu am solo man boo ma ñëwee dama leen ne marché dafa am heure ubbi ak heure tëj waaw mais bu dul tëj ma ñëwee d'ailleurs d'ailleurs boobu ma uh-huh. ñooy ñëw boobu ma ñëwee marché bi am woon box bunt Cap Vert ah, voilà boo ma ñëwee marché bi amul woon sax bunt c'est-à-dire bay yéeg lu nekk ay doon dugg ma ñëw ma leen marché dafa am heure tëj dañuy heure bi trois heures quinze heures ñu daal di sonné dama wut sonnerie xam hmm. day def waaw ñëpp xam ne premier sonnerie préparé leen deuxième sonnerie police nationale mooy garde suñu marché war génne ñëpp ñu tëj suñu marché marché bi nekk en sécurité léegi Abou euh, beneen bi moom mooy euh, est-ce que dafa am concurrence boo leen di yëg ak grande surface yu bees yi fii ñoom Auchan ak ñoom U ak ñoo ñëw fi temps yi suñu amul woon taxawaay am concurrence mhm. Mhm. mais marché bi léegi daanaka man week-end dañuy gaare gaare gaare ba mhm. nit yi dañuy toppante en file tellement que client yëpp ñu ngi ñëwaat Mhm. avant danga daan gis benn client day toog boo maraîcher woo jaaykatu jën bi ne ko mhm. indil ma sama jën boo maraîcher. loolu dëgg <laughs> mais leen mais attends il faut ñu fonk suñu bopp. Mhm. mais léegi ñun suñu mur bi dafa moo gën a taaru si banlieue bi yëpp loolu moom am naa courage wax ko soo duggee parce que dama leen ne tey soo amee par exemple tey nga amoon sa soxna. ngeen bàyyi bàyyante mais soo ko bëggee labataat danga war a indi ay feem yu bees. Mm. donc man boo mu ñëwee dama leen ne. da nga labataat bi. waaw voilà <laughs> dama leen ne dama leen ne soo leen bëggee jigéen yu taaru yi ñëw si marché bi. Eh. il faut nu defaraat ba suñu duggee gaare bu jël gis espace vert yi et cetera dugg génn si jàmm génn si jàmm. Mm. moo tax ñëpp danoo dellu si. léegi euh, abu euh, beneen bi moom mooy li ñuy wax perspective mm-hmm. maanaam. Euh, gis-gisu ëllëg si si si marché bi tey. Ah. yow yaa ngi fa depuis 2000. Euh, yaa ngi fa am depuis dix deux mille fin 2017 am projet euh, plan stratégique boo xam ni da nga koy dérouler sur cinq ans. Ah. non man sama sama projet. mooy dans le court terme être l'un des meilleurs marchés aux poissons d'Afrique. Okay. parce que danoo war a gëm suñu bopp xam nga Sénégal ce qui ñun efficace wax ëpp jëf ji efficace si liggéey hmm. wax naa ko sànq sànq bàyyi wuñu ay sali séminaire on va perdre notre temps. waaw léegi yi lan la mooy sunu espace de vente bi xam nga hmm. dafa nen. Hmm. avec avec avec pas de moyen ni ngi góorgóorlu dafa mais suñu espace de vente bi ba léegi table en bois yi ni ngi fa. te man gëm naa ni bokkul àndul ak. Euh, émergence àndul ak set àndul ak sel léegi ñun projet bu nu am mooy dem naa ba gëstu ba gis ay table en fibre de verre yoo xam day am harmonie ñun suñu espace de da ko war a moderniser waat ba nga xam ne kii tey su duggee si soxlaa coof du wër day am tableau signal signalétique bu koy wax ni soo jubalee fee di nga fa. fekk coow parce que marché bi amagul tableau signalétique. non non loolu amagu ko mais léegi set bi noonu njëkkoon jël en priorité léegi deuxième projet bi nu am mooy man dama bëgg ku dugg si marché bi di jën di jën ba génn sa tànk du takk ndox. donc danoo war a defaraat table yi mu am ànd ak assainissement. bi nga xam ne est tamit mën nañ leen di mu am ay. Euh, euh, norme par kilo. Euh, waaw maanaam prix yi daal boo duggee nga xam ni kilo coof 6000 la kilo yaax 3000 la euh, kilo coach 6000 la. exactement loolu. Euh, jarañ kilo nangam. non loolu war na mun am mais comme que comme que en fait gestion bi c'est privé au niveau des mareyeurs mais gëm naa ne suñu demee ba. moderniser espace de vente bi. Mm-hmm. man gëm naa ne ñoom duñu bañ ñu egg foofu. Ah, waaw léegi beneen bi mooy euh, ni naa wax na ko nee na tey yéen yaa ngeen di góorgóorlu marché bi am beneen xar kanam tey euh, nit ñi ñeme ko euh, di fa dem léegi seen expérience boobu nan la yeneen marché réew mi parce que Sénégal amul beneen marché boo xam ne tey mun nañ ko fi kañee noonu nan lañ mën a def ba ah, au ñu ngi koy wax sunu marché yi ñu ngi tàkk. Ah, léegi xam nga mosieur Tounkara nit yi ngi wax tàkk marché yi mais am na lu gën a garaaw lu nekk si lu gën a garaaw tàkk yi mooy lekk bu bon bu nit yi di lekk. xam nga am na dee boo xam ne dee bu yeex la. Mhm. lay rey nànk-nànk moo tax ñuy wax dëkk bi kenn wérutul parce que da ngay dem fu ñuy jaayee lekk nga gis mbalit yi. Mhm. gis sax yi gis foos yi. Mhm. mu ànd ak lekk boo xam ne moom ngay jën du lekk mais population bi amuñu choix. donc man léegi lan laa leen wax mooy nit yi danoo war a danoo war a marché dafa war a am gestion. suñu marché kenn géré wu leen. Ah, cest marché fu neex lal fu waay. non ah, marché loolu am fa. Hmm. marché central ku nekk foo war a toog day toog. Hmm. soo ko mënul nga xool nooy def. bon euh, Abou Abou Abou Mbaye marché est-ce que yëpp am nañ am nañ ay ay directeur non mais loolu la wax loolu la wax nee na marché dañ koy gérer xam nga xam nga tey. à yeux fermés je peux reconnaître hmm. marché Gueule Tapée. oui xam nga xam nga tey li mu wax dafa am solo mooy moom mun nga ni abu mbay moo jiite. Mm. marché central bu Thiès mais tey marché ngelaw kuy directeur bi. kenn marché Mbabas kuy directeur bi. kenn marché Wakaam kuy directeur bi. donc monsieur ah? Tunkara syndicat kuy directeur bi. xam nga non li muy wax dafa xam nga xam nga li mu Kermel fii marché Kermel te lakkoon na ba ñu defaraat ko parce que patrimoine mondial de l'UNESCO la. gis nga li investissement classé la classé. liñ liñ ci investir pour mu mel nii mais la xoolal marché marché Castor ni mu mel professeur. Hmm. ah te mos nga dem marché Castor. marché Castor. ah man fa laa dama lay laaj rek xam naa ne xam naa ne booy sikap ma de ma lay laaj rek. marché Castor gis nga ni mu mel. salté. moi man front de terre laa màggee. marché Castor da ko daan dox 15 minutes mais professeur euh, boo gisee marché ni mu mel amul limite. Mm-hmm. marché bi du tëj ah du tëj. da ngay fekk ay doomi aadama yuy fanaan ci biir mm-hmm. imagine bés bu tàkkee am na ñoo xam ne dinañ ci faatu dinañ xam ne mm-hmm. ne ah, faatu nañ ci biir mm-hmm. dañuy wax Petersen ak yeneen mais marché yëpp la ñu war a xoolaat seen gestion defaraat leen mu nekk marché yoo xamante ne heure boo fa demee nga mën a ki ni ñuy reproché Sénégalais yi dinañ dem Auchan ak Utile ak Carrefour yi ñëw parce que marché yi ñu ngi dans un état boo xam ne da nga wër ba tas da nga bu nawetee Castor boo fa dugg ah, ak beneen marché wala da ngay wut ay daal sunu marché yi nawet moom musiba doy na waar doyen xaar doyen daaw une seule chose c'est-à-dire damay dem ci marché bi mm-hmm. et vraiment j'aime bien ce que tu as fait et wax ni travailleurs yooyu soo leen laajee yéen ak directeur bi dañ la koy nettali mhm. donc nit kuy wax dëgg nga mhm. kenn mënu wax li wax dëgg mhm. le problème des marchés man pour man c'est parce que les maires ñoom ñooy def tout pour les euh, dagg juute ay ces trucs là y a trop de magouille et trop d'installation à côté et parallèle moo indi branchement clandestin ak yooyu yëpp lui c'est parce que il a assaini le marché donc que faire les mairies et les marchés c'est une question qu'on doit se poser à l'échelle du pays. mais mais mais doyen doyen mooy problématique bi Adjara posé léegi. Mhm. bu fekkee marché bi dafa nekk ci sa commune. yow miy maire yow yaa am warugalu ne lii dañ ko war a gérer. parce que marché boo ko gérer wul. mais njaaxum ak musiba lay indi. c'est là où je viens c'est-à-dire mu nekk ci commune bi. mais mairie bi. day wut un gestionnaire délégué wala un directeur. bien sûr qui est responsable de. mais on est d'accord genre ingénierie. on est d'accord comme si ça échoue c'est toi. si ça réussit c'est toi tu prends tes responsabilités. on est d'accord kenn bañu ko de mais moom tamit aussi dafa joxe exemple. parce que exemple bi mu joxe mooy dafa defaraat marché ñëw relever défi bi. ci relever défi boobu noonu parce que instant yi wax dëgg yàlla jàmbat bi ñun sonn nañ ci Sénégal mm. dañu soxla ñu ñuy wax solution. donc yow stratégie bi nga teg ba nga xamante ne. ñëw nga ba indi sa marché mu mel ni mu mel fan nga jëlee moyens ak yan façon nga def ba teg loolu pour yeneen marché yi jël ci loolu. ku mën ko mën a mën a déjà lu lu am solo nu xam ko mooy. man moom pour dire vrai. Mhm. dama ñëw fekk ni luubal xaalis ma. ok man pour dire vrai. xam nga quand le chat est noir il faut l'appeler par son nom. léegi man ma ñëw may leen man tant que maa ngi fii xaalisu marché bi lay dellu si marché mhm. man on m'a combattu de toutes sortes mais eh, man sama yoon nekk man du am solo sama résultat final. donc marché yi tant que parce que man boobu ma ñëwee dama dem jëli ay étudiants. yoo xam ne mosuñu liggéey. jugee am naa division hygiène environnement man fekk moon kenn ku am diplôme dimanche bi ay nit rek jël jëlu politique nii may leen mais xam-xam il faut nga am ko pour liggéey. ma dem jëli ay jeunes yu musul liggéey. may leen kaay leen ñu ñëw may leen man faale faalewuma master faalewuma kii ñëppay ànd ak man di bale. Mm-hmm. ma am division hygiène environnement. indi division qualité. Mm. indi division comptabilité indi caisse principale indi. administration organigramme nga teg. Ah, ma teg administration boo xam ne. c'est-à-dire taxawaalu amul dangay xëy heure wàcc heure soo ko mënul nga dem fooy. Mm-hmm. donc man loolu moo war a am et puis marché yow mën na la fal directeur marché nga tëju si bureau. Mm-hmm. mais nan ngay suivre mënoo toog sa bureau di laajte ndax marché bi. mais abu abu loolu yëpp am na am na solo mais il faut il faut juste se rappeler une chose. Mm-hmm. marché central. biñ koy tabax. dafa mel ni quai de pêche ba nekk fële ca euh, ca Kébémer. japonais yi. ñooñ ko may client amee def fa 4 milliards fii tamit japonais dañ ko tabax mu nekk structure boo xam ne euh, structure bu wér la mais suñu marché yi amul lool. donc tey boo ñëwoon marché Sandaga nga ni da nga bugg defar foofu euh, euh, câblage bi xam nga loolu du mën a sotti. yooyu dañ leen war a raser. problématique parce que am na loo xam ne moom mënatul dem dafa soxla re-engineering. léegi nag beneen bi tamit mooy yàlla daf ñu yónnee ay signaux su fekkee marché yaa ngi tàkk. loolu daf ñuy wan que attention attention attention affaire bi ni muy demee nii baaxul war nañ ko lijjanti communes yi war nañ ko lijjanti ministères yi nga xam ne ñoom la concerné war nañ ko lijjanti lu ko mooy rek affaire bi kenn ku nekk parce que personne n'est à l'abri suñu soxna yi dañuy dem ci marché yi ñun ñii dañuy dem ci marché yi mun nga fa dem euh, mu tàkk yow tamit te ñu bàyyi lu euh, ko jinne yi ay court-circuit la parce que euh, tu vois ay branchement sauvage la non branchement sauvage yi moom mooy indi court-circuit ça moom c'est du yëfu yëfu jinne n'est pas a par exemple dama gis Dakar beaucoup de quartiers qu'on a déplacés. Mm-hmm. dañ lakk d'abord. donc de sérieux problèmes. avec ah, ces affaires qui brûlent tout temps donc je préfère mais la mais bon ay suspicion légitime la bon Abu parce que euh, doyen boobu moom benn kii la Abu nag Abu je précise que Abu sama rakk la vraiment ñun ñoo màggandoo. c'est la perfection. ah maag magam <laughs> maag magam ñoo bokkoon benn classe. Euh, moom sama sama sama sama rakk la. vraiment am euh, loolu mbégte gis ni que sunu rakk yi tey ñun mun nañ tëdd nelaw. nekk am nañ loo xam ne euh, ñoom waar woo xam nañ ko bay. Mhm. sans problème bon abu. lan ngay jeexale. non lu may jeexuloo mooy ñu pour man dëkk dafa am ñeenti mbir yu ko yore rigueur. engagement discipline ak culture du travail. gëm liggéey gëm liggéey. non abu na répété waat pour ñi ñuy seetaan. engagement. engagement culture discipline ak culture du travail. Euh, suñu yaakaaree di développement day wàcc rek nii comme par magie ñu ngi nax suñu bopp duñ liggéey samedi duñ liggéey dimanche fête yu dul jeex il faut qu'on se tue à la tâche. ñun on a un devoir pour les générations futures mooy lan liggéey ba dee pour suñuy sët fekk développement bon nag maa ngi ñaax nit yi président aussi na bàyyi xel ci ndaw yi parce que da ngay dem ay bilo fekk fa ay pas yu retraité mais fu ndaw yi di liggéey ah. y a des jeunes compétents nan leen jox seen chance pour liggéey réew mi mais pas yu dañuy accompagner peut-être jeunes yi fa nekk aussi parce que waa accompagnement loolu mën nekk tamit parce que paa yi dañu am expertise am expérience boo xam ni mën nañ si jëriñu daal. waaw waaw mais xam nga parce que boo bàyyee ay ndaw noonu rek rek du sotti de. d'accord mais benn benn mais mais léegi. léegi ah, ndaw yi ah ndaw yi. gis nga ndaw yi xarañ nañ. aywa euh, Abou Mbaye di la euh, sant di la gërëm bu ah, baax. non yow on est ensemble. concept oui oui il faut moom équilibre rek. équilibre boo xam ne mais munoo bàyyi ay ndaw rek di dem. sinon euh, tu vois l'inexpérience moo leen di rey. ils vont être expérience donc non yow on ensemble euh, waa koñ ba yëpp euh, waa Sicap Jëppal foofu. di leen ziar moom moom ñun cour Sainte Marie lañ bokkoon. ak man ak magam Mody. ñoo bokkoon benn classe waa cour Sainte Marie. ni naa penn wax naa ko fii. <laughs> parce que affaire. affaire concours euh, dañuy ñëw léegi si professeur Arnaud mais affaire concours bi moom. Euh, c'est parce que amul école bu fi mën a gagné cours Sainte-Marie ah, si wàllum espace vert. amul kaa may ñu benn euh, xaarandi bon de toute façon sama école la ñooy gagné ah allez on a gagné <laughs> on a gagné kaa may ñu benn xaarandi en attendant ñu dugal professeur Henri Lo. dugg sama xel mi tàmbalee di ëlbatiku oh, oh, oh, sama xel mi ëlbatiku delloo njukkal euh, Karajo Diagne ñii delloo njukkal euh, Mas euh, ñii delloo njukkal Bara First Class professeur Henri Mathieu Lo moom ministère de l'environnement la nekk. di yëngu si wàllum tàggataate. si wàllum lépp lu jëm si wàllu environnement lépp lu ñu wër. waaye it moom mooy président wu jurie bi nga xam ne dañuy joŋante si école yi ban école moo gën a set. ak wan école moom moo gën a naat si wàllum gàncax. gàncax uh-huh. noonu la. Uh-huh, euh, professeur Henri Mathieu Lo tey euh, mbir mi boo koy présenté lan ngay wax. Euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant njëkk ci invitation bi di nuyu ñëpp mbir mi suñ koo bëggee tànk tënk mooy fexe ba ndaw yi dugal ci seen bopp seen jëf ak lépp. ne gàncax at euh, alam gu naat moo leen yore moo ñu yore ñun ñëpp. Hmm. te ca door maanaam ca ndaw lañ ko war a def ci ci xale yi. mais loolu euh, ñun maa ngi fàttali ko ah, ni naa penn bi ñuy nekk euh, école primaire fii Saint-Pierre bu Grand Dakar ñun dañu doon tàggat si yooyu. mais léegi dafa mel ni yooyu dafa nax saay. dafa nax say parce que dañ ci dañ dañu dem ba fàtte dañu dem ba fàtte lan moo ñu war a lan moo lan moo yore àdduna si dañu dem ba fàtte ko. pour ñun xaalis moo yore àdduna. voilà te loolu njuumte la. xaalis technologie technologie baax na lool mais technologie outil la dafa am loo xam ne mooy mooy base. bon léegi euh, wax ñu si concours bi. concours bi li ma dooree mooy. maris mariste bokk ci. hors série hors concours. waaw hors série parce que mariste dañ ko labelliser. dañ ko labelliser déjà comme une école verte une école qui va vers la durabilité. moo tax fu mu nekk nii mariste doon école bi nga xam ne mooy gunge yeneen écoles yi dina bokk sax ci ci ci jury voilà. don école boo xam ne vraiment. waaw ki liggéey bu am solo moom dafa gëmoon gàncax. waaw waaw non daf daf dafa amoon vision. parce que vision tamit mooy essentiel ci. ah ñun de bañ fay jàngee. xel xalaatul nga dagg xob. xobu ah. garab waxuma nag naan da ngay dagg ay ay branche ak ay gor garab ak buddi fula sa juróom ñaar fukk junni xel xalaatu. te loolu tey li ngay wax nii tey. xale yi dañ ko tàmm ba nga xam ne sa buntu sa buntu kër sax soo fa defee ay plante ñu romb dañ koy foye di rocci lu wér nga wax soo leen soo leen ko waxee ah mu mën a mu indi sax coow non dafa compliqué dafa gëm ñax voilà <laughs> euh, ba nga xam ne foog loolu tamit ñu delloo si ko ci ci xale yi léegi école yëpp ñoo bokk sauf mariste wa école bi yëpp sauf mariste. sauf mariste mariste ci ñuy juger lay. non loolu c'est juste. mariste non c'est juste. mariste ci ñuy day ubbi buntam nit ñi mën a ñëw xool naka la ñu mën a def. gis nga mariste xay yi fa nekk. waaw non non oui c'est important parce que looloo tax sax ñu mën a méngale lii euh, monsieur ah, Mbaye doon wax. Uh-huh. sànq parce que. ma ma ma ma et puis li li daam waaw. Mm. jàmbat bi dafa doy. Mm. foog ñu wut ay solution mm. solution yi nag tamit xam nga mooy lan. mooy wane le bonnes pratique mm-hmm. mettre en évidence les bonnes pratiques. ñëw eh, te te loolu. da fësal lu baax daal fësal lu baax. fësal lu baax wane ko ñu mën a wan tamit ku ci nekk naka la mën a def ba àgg fa. ñun ñun centre bi may jiite ci loolu lañu la ñu jublu mm-hmm. euh, dafa am parce que loo gis tamit euh, maanaam dafa mën a dafa war a wéeru am na fu mu war a wéeru ñun wax nga ko sànq dañu amoon ay yenn valeur yoo xam ne dañ ko dañ ko ñàkk tey mm-hmm. avant li ma doon wax sunu yaay yi dañ daan bale buntu kër yi ba tame ko. Mhm. lay ko. ah xale jigéen léegi ku leen bëgg def loo loolu. non xalaatuñ ko. Ah. vraiment tamit. loolu c'est ante professeur parce que tollatuñ jamono boobu. jamono boobu moom. mais leneen mais leneen a ngi fi. méngoowul ak jamono. bu doon dund ba tey du yëg ci gëlëm. Hmm. ci jéere yi lay laal ci rant yi lay laal. non non il serait modeste quand même. non non amul benn modeste. non parce que amatul. Ford Ford euh, Explorer yi. du modestie. professeur dëgg tamit dañuy waxante dëgg. expédition yeeg yooyu du explorer. revenir au, au sujet euh, ngi ñu ngi delloo si waat. quand parce que euh, récemment. Mm. Euh, sur les réseaux sociaux vous avez vu il a un, un challenge qui a dem fekk benn gox boo xam ne peut-être mbalit la et tout ça nga fexe ba defaraat ko réhabilité waat ko peinturaat ko ba mu def defaat fa ay garab ak loolu donc je pense que ne yooyu ay initiative la yoo xam ne euh, mën nañ ko di ko gën a. Euh, peut-être fësal ba ñi nga xam ne xamuñu mm-hmm. njëriñ bi nga xam ne moo nekk ci gàncax. Mm-hmm. ñu mën cee xam gën cee mën a di ko di ko roy sax nan la def ba mhm. euh, gerte nga def ba mu mhm. sax garab loolu da doona woon sax nelaw guddi mhm. da nga doon bëgg tout le temps di am résultat man man mosuma cee réussir nag mais bon dama ko <laughs> doon sumi di xool dafa am solo soo xoolee ci wàllum Euh, njàng meeg njàngal bi ci daar yu suufe yi mhm. loolu la ñuy woowee le question émergente mhm. ñu ne compétence de vie courante CVC mhm. enseignants yi sax ñu ngi leen koy jàngal euh, ñu ngi ciy def formation foofee ca CRFPE Mm-hmm. surtout fi ñu naan centre régionaux de formation du personnel enseignant nest pas directeur mm-hmm. Mm-hmm. donc da loo xamante ne xëy na ci pratique bi ci lañ war a gën a mën a xool nan la ñuy gungee école yi su fekkee ni communauté bi war na mën a jël en charge loolu ñu jéem a gunge école yi pour ñu au moins ñuy mën a euh, jàppale administration bi ñaax xale yi pour ñu mën a indi ay. Ah, loolu loolu lu am solo la oui euh, doyen. waaw man je voulais distingue deux choses. Hmm. la majorité des maisons yi am Sénégal duñu caro duñu ay caro duñu ay maison yu ñu carrelé mhm. ay suuf la buntu kër yu aussi nekk ay suuf donc l'idée bi nga lancé ah, que bale bi ak càmbar bi loolu dañ ko war mhm. dekkalaat ci yu bare bare. des des douanes wala ci banlieue bi. Mm. non non même banlieue bi léegi am na ay te banlieue maisons yi ëpp Sénégal du nekk plateau. Mm. non non du nekk Sicap moo tax la majorité des maisons au Sénégal. mais je parle du Sénégal. du nekk ñu kaw. donc li mu wax moom ñu dugal ko. dugal ko ci xelu nit ñi te ñun bi nekk xale muy góor muy jigéen ñëpp nañ daan càmbar donc ñu dugal ko aspect boobu aussi mu nekk benn métier ba nekk métier de jigéen kese góor jigéen ñoo ko war def man je retiens idée boobu maintenant concours bi nag parce que xale la maison enseigne l'enfant amène l'école à la maison. Eh et amène la maison à l'école. donc ce va-et-vient fekk na am répercussion bu baax. ci biir kër yi concours yu demee noonu. mais très important doyen Nina mm-hmm. professeur li ma li may dolliwaat rek mooy ni ni ñu waxee sànq kii Bijou nee na loolu wees na mais damay rejoindre idée doyen Daouda ak argument bi mu wax dama siy yokk leneen. tey bu ñu gisee am na yoo xam ne même Dakar am na localité yoo xam ne ba léegi. Mm-hmm. kër yi dañuy am suuf. Mm-hmm. nit ñi dañuy lay. Mm-hmm. man caserne laa juddoo. am am malchance ou chance dëkk kër goo xam ne c'était ci mur bi la woon donc cour avant yaatu cour arrière yaatu da ngay xëy bale lay euh, ba pare bale tali <laughs> tous les jours amul dimanche la amul fête la tous les jours danga koy def obligatoirement te loolu il faut ñu indi si mais au delà de bale lay bi li ma bëggoon laaj professeur li ñuy li ñuy gestion de des déchets lan moo si li nga xamante ne war nañ ko jàngal ndaw yi hmm. si li nga xamante ne moom mooy aussi concours bi ñan la concerné ak xale yi lan mooy objectif bi ngeen ci bëgg a am parce que gis nañu ne euh, monseigneur Benjamin dafa accompagner ren. ne bëgguñu kermesse rek foo kese. dañu bëgg muy ànd ak ay thèmes. ñu wax thème wax environnement wax insalubrité wax. ville propre santé pour tous. yéen ñi nga xam ne yéen ñi yéen yow yaay président jury concours bi. école yi nan la ñu war a duggee ci concours bi. ak buñ si duggee. yan yoon la ñuy jaar ak buñ ci génnee tamit lan mooy liñ leen di jox. objectif ak lan mooy liñ leen di raaya bi. aywa léegi euh, laaj bi leer na professeur Arlo mooy euh, concours bi. Mhm. école yëpp ñoo si bokk sauf Maris. waaw léegi nan la ñuy inscrire nan lañ siy bokkee. dañu inscrire en ligne. fu mu nekk nii inscription yi démarré na. Mhm. parce que lancé nañu message bi ne du premier au 15 avril mën nañu inscrire en ligne. si ban euh, adresse comme. adresse bi joxe nañ ko. Mm-hmm. joxe nañ ko. Euh, jàppoo ko nii. non jàppuma ko. foo nga jàpp nag parce que ñoom Marie-Cisse yooyu. c'est 3W kermescathédrale dakar.com. très bien si kermesse cathédrale. Euh, Marie-Cisse fële ca Somone ak euh, waa Sénégal yëpp boo leen buggee bokk si concours bi 3W euh, point kermesse cathédrale. non non c'est-à-dire que pour le moment. Hmm. Dakar lañ ñëw waaw mu yem région de. ah région de Dakar bon kon waa Somone bokk leen. région région de Dakar. la la la yem. mais xam naa kon ku nar a gagné Dakar bàyyi loolu bu ma bañ a wax mais mais école privée française yeeg yooyu si lañ bokk parce que ñoom tamit si seen ay programme école école tubaab yi si lañ bokk waaw si lañ bokk est-ce que parce que ñoom tamit si seen ay programme bi am bu baax euh, élémentaire et secondaire élémentaire secondaire privé public privé public ñëpp mën nañ bokk waaw privé public te am na lu ñu dugal am na lu ñu dugal keroog bu ñu waxtaan. aywa léegi non laaju laaju ni naa pend donc ñëpp ñoom ñoo conseillé léegi euh, xale yi. Mhm. ni ñaa def laa gestion des déchets. Mhm. naa mbalit yi ni ngi leen gérer. Mhm. est-ce que loolu xale yi dañ leen si initier. oui xale pour dinañ leen ci initier ci nan fu mu nekk nii parce que xam nga fi ñu jógee dafa dafa dafa sore. foog ñuy def étape par hmm. étape. keroog sax première étape bi mooy lan. première étape bi mooy. le déchet est une ressource. Hmm. mbalit lu ñu mën a jëfandikoo. le déchet est une ressource. ñu indi ci biir euh, parce que yàlla a concours am tamit lu ñuy wax tour des écoles. tour des écoles tour des écoles dañu wër ci écoles yi di leen wan tamit ay. expérience ak i pratique yoo xam ne. Mhm. yu baax xale voilà yu baax. leen si mun roy daal. voilà léegi objectif wu euh, jubluwaayu euh, concours bi lan la. jubluwaay concours bi sax mën nañu wax ne le set concours bi c'est un prétexte. Mhm. prétexte la lay la waaw lay la pour indi école yi école yi te soo école waxoo rek élève mhm. Mhm. maître a ngi ci. parents ngi ci. tous les acteurs. ñëpp acteurs yëpp a ngi ci. mais école yi dafa benn dafa war a set. ñaareel bi école yi fa la. jikko yu baax yi war a jóge pour law ci dëkk bi. aywa euh, Allo euh, waxtu bi jàpp nañu tey euh, dénkaane bi nga bëgg ñëpp jàpp ko lan la. li ma bëgg ñëpp jàpp ko mooy benn te damay def lien at li sama naataango bi wax sànq. mooy dañu war a am conscience ne problème bi. ci ñun la. ñun la njëkk du problème mu marché yeeg marché yi nu mu mel. ñun noonu lañ mel. noon lañu mel. suñu biir xel yeeg suñu xalaat ak suñu jëf yi. exactement set set nag fii lay commencé. wér nga wax. foofu lay commencé wér. suñu changé suñuy jikko rek leneen lépp changé. marché yi set. école yi set mbedd mi set. professeur Henri Lo vraiment am a am solo la wax ni euh, affaire yëpp mi ngi si sunu biir bopp yi saa yu ñu tàmbalee am gis-gis beneen gisee neneen do rek maanaam doxalin beneen day am bu ko defee beneen résultat tamit dafay am parce que résultat bi am tey. neexul kenn mm-hmm. ñun ñëpp tey dañ d'accord président de la république si boppam dafa taxaw de réew dafa salte uh-huh. te keroog bañ koy euh, ba muy waat keroog nee na réew mi saleté bi fi ne war na fi jóge donc ñun ñëpp tey amul kenn ku kontaan si mbedd yi si école yi si kaar yi si maanaam gaanuwaay yi si euh, partout ñun tey kontaan nañu si réew mi ni mu mel si wàllum cet te loolu euh, professeur dafa ànd dafa am lu am solo su maanaam nit ki euh, professeur xam nga loolu dama si yàgg joxe benn misaal xam nga misaal bi mu doon ma ne boo ñëwee fekk nit néegam salte kan moo salte ah, nit ki moo salte donc sa kër bu salte yow yaa salte sa mbedd bu salte yow yaa salte sa dëkk bu salte yow yaa salte donc ñun Sénégal ñun ñoo salte fu mu toll nii dañ ko war a nangu parce que nit tamit da ngay am euh, da ngay am humilité da ngay am oyofu nangu say manqué manqué nangu say erreur ñun si wàllu cet moom ñun vraiment ñun Sénégal dispositif du du du toilette euh, kii lu mu tëdd ci mbedd yi du du ay poubelle yoo xamante ni di nga gis foo ko sànni da gis kuy def nii ba mujj gi sa sac man moom sama sac mooy sama poubelle. lu am solo la non non loolu lu am solo parce que mooy mooy li professeur en loo di wax léegi Ajara professeur dafa wax lu am solo que école ay acteurs ñoo ko wër. Mhm. donc mbedd mi tamit ay acteurs ñoo ko wër kenn ku nekk am nga. waar woo xam ni moom nga war a bay pour affaire yi baax. professeur en loo vraiment delloo ko njukkal mais nag naa naa naa la wax dara gis nga professeur affaire u cet yi affaire u environnement yi. képp ku ko fonkul doo gudd fan. Moussa Jameson. mun nga ah, xool yëngal asamaan ak suuf. malaise yu bare yi ñuy ñuy am li mu doon wax nii ku mën a toog di lekk ci watu rigole buy. Euh, euh, même yooyu yëpp. munoo wér fe munoo wér. munoo wér euh, gu yaram ba waa waa Japon lañ la ko wax tey boo demee si kaw suuf Japon mooy réew bi nit di gën a guddee fan. Mm-hmm. ñoom lañu ne seen gudd fan ñaari mbir moo leen ko jox. ñaar dong. cet euh, mhm. ak médecine ak santé amu amul leneen euh, delloo njukkal professeur Aliou tey sunu euh, cas dañuy may benn xaarandi tey ak sunu gan bi mujj tey ci tutelle